xam naa mën nañoo seetaan rek benn euh, extrait ziar boo xam ne si ci atum euh, ci jëm ju tedd ji di Cheikh Salihu Mbacké wax kay mu ngoog euh, ko defee ñu teewlu te dellu si asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fukki fan ci weeru tamxarit ahama xaytasin atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk juróom-ñett ci gàddaay gi di yow maa suura dëppoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai 1997 daara Hizbut Tarqiyyah ak mboolem bànqaas yi mu am dikk na siyaare ci Serigne Saliou Mbacké siyaare bi nag ràññeeku na lool ngir jenn daara desul fépp ci réew mi ñëpp dikk nañ teewaay bi it fullawu na lool tàmbalee ko ci daara ju mag ji nekk tuuba ak daara yi Ndakaaru Tëngéej Kees Tiwaawan Jiwaalo Kebemer Louga Ndar Njaareem Kaolack Fatick Tambacounda Kolda ak Ziguinchor daara yi nekk bitim réew itam di Italie France Amérique Côte d'Ivoire ak feneen foofu membre nekk ci biir réew mu mën a doon seen jëf ak seen taxawaay dara desu di sa yaakaar àdduna ak àllaaxira war naa jaral ku ne xuus ci ay dex wala jéggi ay xuus kon siyaare kii nga xam ni tey moo taxaw ci buntu kër Serigne Touba muy Serigne Saliou Mbacké di seere ci bépp taalibe bu yaakaar sëriñ Touba te muy dëgg jenn farata jiituwu ko ci nun ngir bu nu fàttalikoo ne mag ñi fi daan jóge di fekk sëriñ bi ci xomaak ci gànnaar walla céyeen walla njaarim dañ daan dox ak seeni tànk coono yu nañu waaye wóor nañu ne lu leen sëriñ Tuubaa mos a dël ci yoolub siyaar defal nañu ko ngir wax ji mu wax ne wa kullu man xadamani aw zaara fa najji yi wax fi loo aw zaara nee na képp ku ko liggéeyal wala nga jóg siyaari si ko suñu boroom defal na la ak njëgal ak mucc bi ñu agsee mbooloon mépp dañoo wër jumaa ji door a wutali kër sëriñ Saliou Mbacke kenn desul du mag du ndaw du góor du jigéen ñëpp dikk nañu te nii mbooloo mi toll ak limu woto yi ni mu toll doy na firnde ci ne kenn desul bar bu màgg bii di Matlabul Fawzeyni lanu sëriñ Saliou Mbacke defal tawféex dikk fi ñu amale fi siyaare bi bi sëriñ bi dikkee fekk na mbooloo mépp teew kenn desul kuréelu xasida yi yu mag yi ak gone yi àndandoo di yëkkati xasida yi ci wet gune bi sëriñ bi agsee ci la ànd ak jëwriñu daara ji nemmiku mboolem bagage lu ci ne mu xool ko big ci lool lii nag tawféex gënu ko wëree ci nun te wax ji sëriñ Tuubaa wax ci xas dëgg Matlabul Fawzayni gi mu bindee ci barab bii ñu siyaaree tey firndeel na ko muy wajlub lahal xayr minal jihaati as sitti wak fiyaahanil aafaati dafa wax ni yow suñu boroom ñaan naa la nga xëcc wépp yiw ak lépp lu baax ci juróom benn gox yépp jëme ko ci sama dëkk bii di Touba te ñaan naa la nga fegal dëkk bi gàkkub àddina ak àllaaxira yëpp wax jii day nattable wuñ ne lépp luy àddiyee ju dikk ci siyaare bi ci barke wax jii rek la jàppandee ak fu mu fi mën di bàyyi ko bu ñu amee kon tawfiix mu waaxu ba tàbbi ci loxo Serigne Saliou Mbacke war nañ cee sant sëriñ Touba te xam ne danañu ci defal lu kawe suñu njort faw li jotil min wasa السماء sëriñ bi nemmee ko bagage yi ba noppi ñu jiite liggéey bi ci mbooleem daara Hizbut yi ci biir réew mi ku ci nekk ñoom ñëpp jëwruñu daara ji àggale na leen ba ñu sëriñ bi ñoog ñiy taxaw mbooleem daara yëpp te féete ci wàllu direction générale bi nekk Touba jataay bi ñu am tey lépp ak yokk la ak wu yëkkatiku ci ñëpp ngir sëriñ tubaa ko wax fa nazaratul hubbi min ash-shaykh ila muridihi hiya al mazaya wal hula kon nattable wuñ ne mbégte mi sëriñ saal yu Mbacke wone te seereel ko mbooloo mi wóor nañu ne fàggu nañu ci sëriñ tubaa lool suñuy kàttan lot na ci jëf ko sunu sàkk ko suñu giir dund mënuñu koo may sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax mu ni ci bis bu màgg bii ak barab bu màgg bii di Matlaboul Fawzayni waaw nee na sant na yàlla lool ci ci ci siyaare gi ñu def ci bis bi nga xam ne dañ ko day sunna ci digle ko ci siyaare kon kon ngeen xam ni jóg ngeen ngir siyaare bi te dikk ngeen ngir ndigal li nee barab bii ngeen nekk tey nag fenn gënu koo màgg ci Touba ndax Serigne Touba ko màggal ne juróom-benni juróom-benni at yi nga xam ne am na ko fi ne da caa jagleeloon juróom-benni weer yoo xam ne barab bi ñu toog tey la ko jagleeloon ci biir loolu la defee mat la bu faw see ni muy xasida gi nee na kon nangeen xam ni mu demee ci Touba moo tax mu jagleen leen ko maa ngi yéen ah. nee na itam liggéey bi nekk lépp ci yéen a ko liggéey ak yeneen yi ne feneen nee na mi ngi leen di bëgge bu baax te di leen san nee na sëñ Touba mi leen tax di def moom la ko seereel ne ne di leen mu ngi leen mu ngi ni sàkkul ci moom itam li mu digge ci yoon wi jëf ci jariñu ci lépp fekk nu ci nee na yàgg fee ñëw yàgg ko fee fekk nee na yére yëpp gis nañ ko bu baax a baax nee na yére yëpp gis nañ ko bu baax a baax seet na yëpp yére yi daara la yére yi kër gi la di yére yi daara ji nee mu ngi ci sant bu baax a baax ñu nee na mi ngi ñaan ñu daje cee ngërëmal sëñ Touba itam ak ndimbalam ak tawféexam ba ba fu ñu bëgg àgg ci jëfi yoon wi ak ak ak ak jariñu ci ñu àgg fa amin mbàkk na ñëpp tàllal seen loxo nag ngoog xam naa extrait jour extrait ziar yi rek daanaka jaroon na di def émission bi <laughs> waaw man daal xamul nag ni muy yëngale ñeneen ñi ni muy yëngale moom mi ngi koy yëngale ñeneen ñi wala déet waaw sëñ Lamine da nga ciy ñëw tuuti rek ci ci commentaire. loolu waaw jërëjëf sëñ Modou muy ziar bu bu bu kéemaane boo xam ne. ñi ngi ko defoon euh, yow ma Ashura ah. ci lañ ko defoon. Ah. ndax fukki fan. moo tax mu ne ci bis bu màgg bi waaw ak ci bërëb bu màgg bi waaw. Ah. mu ne kon di bisub ziar. kon ñëw ngeen ngir ziar bi jóg ngeen ngir ndigal. ba noppi itam. Uh-huh. ne ñu fii ma leen teeroo. Uh-huh. maanaam ni mu ni mu demee ci man. moo tax ma jagle leen ko muy Matlabul Fawzayni. ndax sëñ Tuubaa fa la bindee xasida ak Matlabul Fawzayni te itam nee na fenn gënu ko màgg ci Touba ndax sëñ Touba moo ko màggal. Ah. ba noppi itam ñu am ci tawféex ndax nee na li fi nekk lépp. Mm. yéen ko fi def. ndax mbaar mi ñuy ziyaare. yàlla dogal na. Mm. Euh, bokk na ci mbaar yi nga xam ne. Mm-hmm. yaakaar naa ni. xëy na su amee mbaar mu muy tollool ci ñu defal sëñ bi. Euh, mbaaru ngaa bu xam naa lay war a doon. Ah. lay war a tollool ba dimension bu bu bu spécial. <laughs> Ah. sëñ bi liggéey la woon ko fii sëñ Atou ne nañ ko nañ ko defal fii. am na fi sëñ Tuubaa ah. bindee. bindee xasar mat la bu fawse yi. kees googu bokk na ci liggéey ñu sëñ bi njëkk a jox ngir ñu liggéeyal ko fii ci biir kër gi. muy taw tawfeex ju am solo muy barab bi nga xam ne sëñ Tuubaa. fa la bindee xasar mat la bu fawse euh, waxtaan wi nag li ci gën a yéeme mooy. Euh, daf ñu cee nettali. Mm-hmm. xisa bu yéeme. boo xam ne ci làmmiñam la ko nettali moom sëñ Saaliw. Mm-hmm. nee na fii ma toog. Mm-hmm. diggante mbaar mi ak tabax bii. nee na gaynde dàq dàq na fi njaay àll. nee njaay àll gi daw ba jël ñaari tànkam teg ko ci mbaggi sëñ Tuubaa. Eh. gaynde gi seen ko agsiwul taxaw. Eh. ba ab diir. gaynde gi dem mbaam àll bi dem dem ci ay yitteem. Uh-huh. waaye nee na de fi sëñ li sëñ bi doon bind. Uh-huh. la ko jiitu. Uh-huh. ak li ci topp. ak tànki yi mbaawaal li gi gàcc ay tànkam ak coowal gaynde gi. nee na boo ko xooloon ci mbind mi mënoo leen xàmmee. <laughs> nee na raf amu ci. gàkk amu ci.